mënees na koo jëfe Pierre-Edouard Faye la parole est à vous. jërëjëf euh, Néné Aïcha euh, euh, mm. ba ngay commencé da nga rendre hommage Pape lancer benn message c'est normal te loolu aussi je pense dans une démocratie majeure c'est une hérésie ñuy tëj journaliste pour rek ay opinion ak ay idéem mais ñëpp tey bu ñu di xeex pour ñu génnee pap Alé Niang c'est au nom de la liberté de presse. mais liberté de presse boobu également dafa war a démarrer ci suñuy entreprise de presse. Mhm. Euh, fan yële ñu gis nga poser benn acte boo xam ni dafay dem aux antipodes carrément de la liberté de presse. Mhm. parce que sa rédaction yi fii ñoom dañoo opté pour une manière assez originale de traiter l'information mooy dañuy def journal commenté chaque jour ñu si euh, ñuy commenter ay information di si critiquer souvent président di si critiquer souvent ay ñeneen ay particuliers ay hommes ñu gis nga def ko euh, sa benn journaliste Mansour Diop euh, taxaw di di ay questions légitimes si mbiru fisc beek et tout yow nga dugg par effraction si émission bi pratiquement nga chambouler le fil de l' émission euh, wax si sa xalaat loolu est ce que nekkul lu ñu tuddee instinct de propriété mooy lii man maa moom rek lu ñu si wax lu ma arrangé wul damay dugg man tamit rétablir les faits ma joxe sama xalaat question boobu bëgg naa nga tontu ma si. d'accord Sénégal aussi dafa bëri ay patron de presse. ay organes de presse et autant de patrons de presse pourquoi si patron de presse yi nekk Sénégal yëpp yow rek la sa état war a mën a singil yi ba à chaque fois presque tous les trois mois tous les six mois il faut nga alerte ñëpp ni dañ la singili euh, fisc beeg et tout ça pourquoi yow rek yow yow la ñu mën a singili est-ce que nekkul yow aussi yaay joué à fond la carte de la victimisation troisième question Euh, fan yële dafa amoon benn ojo bu doon circuler ñu tuddee ko G16 ñu tuddee si ay tur ñu ñu boole la si. en dérision pour quelqu'un boo xam ni da nga aspirer euh, nekk candidat nekk président jarul la waruloo woon jaral nga saisir les cours et tribunaux pour mën a seetal sa der. jërëjëf euh, Pierre maa ngi lay gërëm ci question yi bi ci njëkk mooy. Euh, fisc bi toujours ci affaire est-ce que aw ma position privilégiée je crois que position privilégiée moo tax ma organiser jotaay bu demee nii yàlla mooy dimbali doomu aadama euh, et je crois que ci biir des médias bokk na ci lu gën a néew ci société yu ma suñu borom jagleel mais nag dafa fekk ne moom la ñit ñi di dégg ma nekk it nit koo xam ne je ne triche pas Bougane bu weexee dalay wax weex na bu ñuulee mu wax la ñuul na pas que fa nga nekk di Walfadjri fa laa jaar Sidi Lamine di sama mentor jàngal ma lu bari ci liggéey bi donc yaakaaruma ne victimisé wu am na ci taxawaay bi euh, incident boobu ngay wax en fait incident je ne crois même pas euh, dañu nekk ci benn maison de presse ma am position boo xam ne yeneen patron de presse yi en fait yeneen propriétaire de groupe de presse yi amuñu ko mooy dama bokk ci ñi nga xam ne jàpp nañu tey ni réew mi mën nañu koo jubbanti kon bu nit toogee ci plateau n'oublie pas que Zik FM leader la c'est cinq de personnes ñoo koy déglu matin Sen TV leader la bu ñu fa toogee wax wax joo xam ne ci pénc mi lañu ko waxee ca pénc ma nga koy tontu. la ma fa wax aussi. yaakaar naa ne waxal ay nit dañoo amuñu possibilité tontu. mais parce que amuñu possibilité boobu man yàlla jox na ma possibilité bi loolu mooy àdduna man la yàlla jox possibilité boobu tey man la yàlla jox possibilité ma toog di wax ngay tontu ma toog nga may laaj may tontu. daal man maa ko moom daal lu ma neex rek man ma intervenir. mais mënuma gëm ne loolu la parce que euh, tey RTS ñun ñëpp ñoo ko moom <laughs> am na ñoo xam ne duñ fa dem tey Sénégal yëpp bir na leen ne. maag Serigne Saliou Guèye mii bokkuñu fi ñu féete pourtant mu ngi nii toog mun ma poser question bu ko neex mu biir la ne ci biir kër gii ma nekk am na fi ñu bari ñoo xam ne ànduñoo ak man ma nangul leen ko di doxal ak ñoom mais c'est ça aussi la démocratie loolu mooy man lu ma gëm et lui je le respecte beaucoup vous savez pourquoi parce qu'il a le courage de ses idées et du naafeq mooy lu ma gëm man ñaata nit ñoo nekk fii 560 nangam nangam lañu mais ñaata nit ñoo fi nekk te ànduñu ak man et ñu may leen possibilité ñiy wax di commenter di wax lu leen neex mais am na loo xam ne nag boo ko waxee mu jëm ci man Bougane mu mel ni man damay victimiser wu déjà man musuma woo kenn ci ñoom ne leen wax leen ci nangam mën nañ ma seede yéen ñii ñëw. pale dafay am briefing journaliste foo jógee boo ñëwee booy balaa ngay wax ak Macky Sall dañu lay briefer fii amul benn briefing kenn briefing wu fi kenn liggéey bi dama ci bokk ànd ci ak yéen yàlla def ma doon ci njiit suñu borom mun naa def ëllëg su ma lekkee dañ maa yekkal donc lu may sóoraale la du position wala taxawaay bu may wan doomu aadama never mukk nit nag ku nekk ak sa sa sa sa tempérament mais comme li ma wax rek bu ñu la. waxee naka su dul noonu wala jàpp nga ne li ñu la wax du lu waxu ci pénc mi ca pénc moomu nga koy lijjante et ñoom waa des médias yi fi nekk xam nañu ne ba ma duggee la ma wax mooy li am kont yu seen TV tëj nañ ko attaque nangam nangam ñuy fayu sa Bougane may góorgóorlu ba di fay ba fi may wax ak yow nii encore xam naa ne danga ne damay victimiser wu waat ba fi may wax ak yow nii pourtant on a annoncé ne dañu ubbi compte yu Sen TV yu Zik FM est-ce que xam nga ba fi may wax ak yow nii benn compte tijjiwuñu ko pire dem nañu ci société yi nga xam ne yëpp des médias day liggéey ak ñoom ne leen bu ngeen amee lu ngeen war a fay des médias yónneen leen ñu ko ñun ñii nguuru Sénégal xanaa kon ñooñu dañoo bëgg a rey ñii fi nekk. c'est quand même 560 pères de famille ay nit la ñu ñoo xam ne fii la ñu yaakaar même bu fekkee ne Bougane àndul ak yow boo taxawee ci télé bi ne ñun waa kër gi xamuñu ci dara alors que demewut noonu ba ma duggee la ma leeral nit ñi xam nañu ne effectivement la comptabilité la direction financière s'est déplacée et ils sont venus au niveau de D-Média ils ont tenu une réunion bi coow li éclaté donc ka fekkewut bu ci poser question boo xam ne dafay jeter le discrédit sur la direction j'ai l'obligation de répondre et j'ai l'obligation d'éclaircir pour les Sénégalais victimisation man Bougane du ma victimiser wu xam nga lu tax wax naa ci leeral ma ne la tey bu ñu ñëwee di laaj Zik FM Sen TV wala Zik FM ma joxe benn exemple Zik FM ñu koy laaj deux cent cinquante millions ci TVA mooy ne Zik def na un milliard nangam nangam bu ñuy laaj Sen TV neuf cent soixante et ci TVA mooy ne yow ci télé nga nekk tele bi def na cinq milliards nangam nangam ci chiffre d'affaires loolu yow mos koo ko gis ci télé xanaa kon yéen ñëpp fi mu nekk nii mën ngeen a concurrencer Christian Cristiano Ronaldo ci alal c'est juste pour dire que amul alors donc man du ma victimiser wu. ñoom même inspecteurs yi dañu ñëw ci sama société yi def inspection am na ci benn société boo xam ne mille vingt milliards mille junni milliards ak ñaar fukk jaar na fa ñu defal ma attestation d'absence de redressement maanaam gëstu nañu junni milliards ak ñaar fukk yi jaar ci sa loxo mais yoreeloo ci impôt fistine tamponné ko jox ma waaw ku yore 1000 milliards yoreelu la ci yow impôt un franc des médias wu 2 milliards mun na la cee yoreel 3 milliards nangam nangam wax bu kan nopp ya koy déglu mooy nite euh, bi ci des wax nga ci.